New Island, New Island, New Island guy. New Island. Slow len na. Nakawer korgi. Bayan si jamrek. Share na len yin yep. Live buka telarek. 5 minutes la wala 10 minutes. Pour nyakh population bi di len wax ni ngeen dem bindu ji nañu bindu ji te wajal mbir mi nañu dem bindu ji wajal 2024 bi benen bi moy waxu Idrissa mais ma génnoon barki démb naan day wax te kenn xamul lu mu wax trois heures de temps de communication benn sénégalais munta a jàpp ne Idrissa sek lii la wax Idrissa sek ay waxam moom la mel ni puub bu ñu bu ñu day ci biir néeg nga war koo tonni sottiwaat ko ci ca duus ba Idrissa sek ay waxam noonu lañ ko war a def ay waxam pupula, la te poup mom tonni rek poup mom tonni rek moy njëriñam tonni dem sanni kon Idrissa sek ay waxam kenn bu mu ci concentré wu kenn bu muy gem ca ci lu muy wax gis nga li ñi jema dor ni ci bop nit ñi di jema wax ni jema manam di jema jaay ci ñu bop ni mel ñom moom Macky Sall lay waxal wala ñoom dañuy day jéem a xuloo xulóowul ak xuloo xuloolu ak Macky Sall Idrissa ak Macky Sall ñu de musu ñoo xuloo Idrissa moom pour moom politique am 1900 nit ñi ñu ngi ci ba léegi ñun jóge nañu politique politique am 1900 moom moom moom Idrissa Seck àddunaa ko raw moom nit ñi dañ ko raw bu yàgg moom ci ginnaaw nit ñi la nekk pour moom nit ñee ñi deux mille mille neuf cent quatre-vingt-dix pour moom nit ñi foofu lan toll ni ñi ñu ngi ci deux mille vingt trois yow politique bi ngay def nit ñi weesu nañ ko jàmbaar demal xool yi say wax ñun ay day lañ ko jàppee Idrissa Seck say wax puup lañ ko jàppee puup waaw yii ngay jéem a naa gis naa ko nag mu posté naan waaw mbojo mbojo Macky Sall ñi ñi ñi ñiy jéem a tontu bu leen kenn tontu waa kërëb kërëb moom nay billi ji la bëgg mu tontu léegi maanaam moom dafa bëgg nit ñi wax ci moom quoi sa Seck ak Macky Sall mu musuñoo réero musuñoo réeroo tey musuñoo réeroo suba yow da ngaa yaakaar ne ay dof ngay waxal wala ay dof ña ñoo nekk ci biir dëkk bi ñun ay nit njaay lañu. xam sa politique yow politique am 1900 jamonoy Senghor yow politique boobu ngay def politique wu fen ñun ñun joge nañu ci politique fen de ñun ñoo bax politique fen ñun ñoo ngi ci dëgg fokkis falan na ñun focus idi ñun dañoo focus 2024 réew mi fu mu toll nii képp kuy fenkat kenn du la jox carte xanaa mbaamu xuux ya xaj yi ñoo lay voté waaye du du du ñun du nit ñi baax yi askan bi Ousmane Sonko dugal na leen seen dugal na ci boppu askan bi lu baax Ousmane Sonko moo ñëw indi politique boo xamante ne kenn mësul toog ba yaakaar ne lii dina am ci biir dëkk bi gis ngeen seen politique yooyu ngeen bëgg a def seen politique yu salté depuis mille neuf cent yooyu ni ñi weesa nañ ko nit ñi ñoo rob politique boobu noonu yéen nag yéen a toll foofu waaye ñun dañoo dépassé politique boobu de yéen yenn a toll politique 1900 sénégalais yi romb nañu politique boobu ñoo ngi ci politique vingt deux mille vingt quatre ak deux mille vingt trois bii focus ñun falan ne ñun lijjantiw ñu Idrissa Seck buy wax buy jéem a xuloo xuloowu ak Macky Sall te xuloowuñu ñun lijjantiw ñu loolu ñun focus deux mille vingt quatre falan ne idi ñun dañoo focus yow say wax ñun ay day lañ ko jàppee say wax Idrissa Seck say wax ay poup lañ ko jàppee tonni sotti ko ca duus ba yow say wax ñun noonu lañ ko jàppee jàppewuñu ko ay waxu nit boo tax boo génn bi nga génnee ba wax ba tey yow kenn lijjantiwu la sax la gaay focus dem leen bindu ji dem leen bindu ji waaw ñoom ñii seen appel yi ñuy def ni pour jéem ralenti affaire yi rek pour jéem ralenti bindu xale yi parce que li am li am musta am ci politique dans l'histoire du l'histoire histoire politique mësul am maanaam xale yi concentré wu ci politique lii mësul am c'est du jamais vi te kenn moo ko def ci ñun mooy président Ousmane sonk kon nañu focus dem leen bindu yi focus dem leen bindu di Idrissa Seck bu waxu Pa Demba bu waxoo Massamba bu wax ñun bu ñu lijjanti ñooñu ñuy wax nañu wax nañu xul ak nu reyante ak Macky Sall suñu yoon suñu ngañ nekk ci gis nga Idrissa Seck bu tokon bu taxoon fofu nan muy mu dégg naa ko muy wax nan de xexal Ousmane bu bu ko jaralee nangam da mané xolal bu xex ya, bu yaw bo xexon 3e mandat bañ 3e mandat bi ya nga dégg di xex Ousmane Sonko pour mu bok ci élection bi du té ñun ñu and ñu and ak yaw idi du té askan bi gëm yaw li ngay xex yow say wax ñun neena la ay poup lañ ko jappé day lañ ko jappé day lañ jappé sa wax yow say jëf sa day lañ ko jappé bo jëfoon ba ñëpp gis ni ki ni a ah, delu sina légui mu ngi ci dëgg du ñu top la duñ la top yow nga da ngay zone jëk jëk rek nga bula ni ñuy japp na couleur bula nga jëk jëk rek nga indi couleur bi kenn xamul yow nga léegi nag kaakataar yee ñoom nañu ànd ak ñooñu waa Macky Sall ñun ku ñu àndal kenn la ñun kenn lañ fi àndal muy président Ousmane Sonko kenn lañ fi àndal mooy président Ousmane Sonko moom moo ñun ci focus la na ne nekkuñu ci ay Idrissa Seck bu wax ak Samba bu wax ñun dañoo focus focus la nu la nu tollu ñun kon gaay dem leen bindu ji bindu ji yi léegi mu jeex. jeex na ba noppi de kon bu leen may bu leen bu leen bu leen may gaay dara nanu dem dund ji 2024 bi ñëw acca ñu bombarder affaire yi dem bombarder affaire yi Macky Sall dem yona c'est tout loolu mooy wax ji ay appel ak ay nangam nangam ñun ñoo ngi fii rek di leen xaar rek sénégalais yi moom ñoo ngi fii di leen xaar ndax Macky dinañu gën am fulla té Ousmane Sonko mo baña a bokk ndax moom dina ñu gëna am ful ndax ñun dinañu ñak fayda ba ñun luñu bëgg Macky Sall xañ ñuko lolu ça dépend ci ñun sénégalais ci ñun la dépend bi Ousmane Sonko waré bokk ci ñun la dépend bu warté bokk tamit ci ñun la dépend kon population bi ñoo wara am sen ful lak fayda sen bopp taxaw tem ñun ci luñu bëgg ñu fexé ba mu jot ci ñun suñu dundu kenn rek moo ko mën a def mooy président Ousmane Sonko moo ñu mun a dundal moo mun a dundal 17 millions million habitants de sénégalais ci loxo président Ousmane Sonko la ne parce que moo woote politique bu dëgg moo woote politique wu yeneen ti yàlla Muhammad waaw mooy lu ñëpp bokk na ci ñëpp lekk waaw waaye lu ñëpp bokk benn groupe rek jël alal bi rek di ci lekk di ci lekk ba bu jeex jàppee ni ñi ay dof. politique bobu nit nit ñi dañ ko wara dépasser afrique lo ci wax rek dem nañu légui ba duggal ci bop nit ñi ni politique manam politique lu salté la té pourtant politique du lu salté politique jaamu yalla la moy li président Ousmane Sonko di wax politique jaamu yalla la politique défar sa réew la mais Sénégal Afrique rek ngay dem rek ñu la ah politique c'est mom fen rek politiciens moom fenn rek ñoom du ñu wax dëgg parce que def nañu ci ñu bopp mu mus ñoo toog di wax dëgg askan bi ci ay fen la ñu mus a dëkkee ci ay fen la ñuy wax ni ñi di sos ràmbaaj lu ne ñu wax ko ni ñi te lu ñuy wax nit ñi yëpp ndekete du dëgg maanaam ñëw digg ni ñi dinañ leen def lii dinañ leen def lii bu weesoo ñu fal leen ñu dem toog ñu nekk ci leneen fàtte askan bi leen fal. loolu la président Ousmane Sonko ne nañu ñëw dindi loolu ba mu set. politique fen la ñu bëgg dindi fii politique digge li nga mënul lañu ñu bëgg a dindi fii politique lekk alalu réew mi la ñu bëgg a dindi fii politique lu ñëpp bokk yow dong nga lekk ko la ñu bëgg a dindi fii kon nañu focus nañu focus te baax te baax dof yeeg xaj yeeg di wax fale ñooñu ñoom la concerné ñun nañu focus 2024 lii laa am ci lu may wax beneen bi mooy di wax waa Pastef ñun ñun Dubaï amaguñu bracelet bracelet ñun waa Dubaï amaguñu ko Dubaï amaguñu bracelet yéen a leen ñu suñu bracelet xanaa ñun duñ am xanaa Dubaï du am bracelet ñun amaguñu wasalaam.